maa ngi tudd Amadou Leye Conté président du conseil communal de la jeunesse de Sédhiou. pour un peu euh, présenter programme mu euh, président voilà euh, ci loolu lañ ñëwoon daal ci tànk boobu lañ ñëwoon voilà pour ñëw nuyu la ziare la mais en même temps nga may leen surtout nga ñaan leen surtout par rapport à mission bu leen dégg waaw parce que au-delà de saa aussi dañ ñëwoon daal pour rencontrer jeunes yi ak jigéen yi tamit. pour ñaax leen surtout par rapport à au au club du 550 sur la préférence nationale muy président Abdoulaye Sylla kooku day yëngatu ci BTP mooy bâtiment travaux publics la plupart des grands centres kii la bâtiment du Sénégal moom moo ko tabax te moom tamit daal euh, actuellement mu ngi yëngatu ci wàllu développement surtout euh, liggéeyu ndaw yi. je pense que ñun ñun ñun sax su ñun sax looloo ñu sawarloo ci mbir yi daal bu ñu ko déggee après dañ ñëwoon daal puisque colda dafa war a organiser activité bi Ziguinchor activité organiser activité pourquoi pas Sédhiou Sédhiou ci Casamance la bokk je pense que genre opportunité yi war nañ ko àndi fii bu fekkente ne daa am ay jeunes ñoo xamante ne dañ leen war a jël ci liggéey yooyu nañ ko jël parce que fu mu nekk nii moom loolooy suñu yiite te loolooy mission bu ñuy sant je pense que c'est tout à à surtout à l'honneur de tout en vous remerciant. Voilà, et vous avez toute notre gratitude et notre soutien. Donc, euh, lui, c'est l'imam ratib de la grande mosquée de Sédiou. Par ailleurs, c'est le président du collectif régional des imams et oulémas de la région de Sédiou. Et je pense que je vous ai un peu briefé par rapport à l'histoire de Sédiou, que c'est une terre bénie, mais au-delà de cela, c'est une terre qui regroupe beaucoup de familles religieuses du Sénégal. Salam alaikum جماعة المسلمين والمسلمات المستمعين والمستمعات المشاهدين والمشاهدات إلى تلفظة بمدينة السجو أي بإقليم السجو عامة بسنغال صفة عامة أما اللي كنت بريزان فاني ak euh, masara dafee euh, ñëw nañ fi ñu yëgal ma jébaate euh, ñu ngeen waajal ñoo fii man jóge Tuuba kër diine yi baax nañ ko defu ci yeneen région yi mais ñun ci première fois pour nga ñëw fii ngir alhamdulilah rabbil ñu jokkoo ñu xamante looloo lu am solo la ñun alhamdulilah rabbil alamin borom kam lu amul dara lu kayita lu njabootam ñun diine moo ñu yor njaboot yi ñu bëgg yàlla defal leen ko bi jaay nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam kon yow nga di nga ne ci yeneen eh, région yi ñun région yu bees la Sédhiou région région bu bees la dañoo bëgg rek lu xew rek mhm. euh, kooku am moo moo ko jiite diriger ko mhm. ñu confier ko mhm. ñun tamit ñu am relation ñu am relation oh, lu am yeneen région pour ñu am ko fii ñu kontaan lool ku leen gisee nga gisoo seen wujuhu si maahum fi wujuhihim ku leen gisee moom macha allah ba ma leen gisee rek ma xam ne moom ku baax ngeen rek Abdoulaye kooku moom macha allah euh, ndax na mbay am ñaar xel ci liggéeyam li muy li muy defe nii moom ma yàlla moom ko ko liggéey moom mu ngi seet yëpp xam yëpp moom balaa mu ñëw ci àdduna sax yàlla xam ne moom liggéey bi moo ko moo dafa ko ko place am la ba yàlla dem ba mu judd mu mu confié ko ko kon alhamdulilah eh, xalaat bu bu yoo xam ne yàlla jox na ko xalaat bi xalaat bu bu rafet la ñu ngi ko ñaanal yàlla rek mais gudd fan ak wér gu ak yokkute alhamdulilah ndax ya rasul sallallahu alayhi wa sallam eh, bay am sikk ci loolu man kaana fi ma ma ida ida fi awn akii inna allah fi awn al ma daama al fi awn axiihi kon boobu tamit xadis ba boo ko déggee da bu baax alhamdulilah soo jàppalee sa morom billahi jaam yàlla moom dund jullital dul dul julli sakk boo ko jàppal di ko dimba te yàlla tax yàlla dina la dina la béy loolu kon ñu ngi ko ñaan yàlla yàlla may ko gudd fan yàlla yàlla nangu la ba jaay seetlu wu ñu jërëjëf jërëjëf man tamit mm. eh, alhamdulilah naanu kulluna al muslimun mm. ñëpp jullit lañ mm. waaye nag jaar sama jaar-jaar mu fa jóge jaar naa fi Touba jaar naa Touba juróom na at def naa ko ci Mahad Azhar dirasat dirasat islamia Eh, jamono Cheikh Cheikh Abdoulaye Mbacké man fekk naa jamono Cheikh jamono boobu lañ doon tabax Daara Kamil masal fulkul mashuun Cheikh Abdoulaye dafa ñun mm. ñu ngi dem dajale fulkul machun fulkul machun waaw parce que macha allah am naa fulkul machun ah, fii am naa fulkul machun waaw am naa fulkul machun fii am naa ko fii amin amin wa yaakum jamia juróom-ñaar at ci kër Cheikh Mouhamad Mourtada Mbacke si si si Mouhamad Mourtada Mouhamad bu bu eh, kii Maamoor si Maamoor Mbakke si Maamoor mooy taw Sëñ Murtala ah, ci moom laa jëmale sax kon alhamdulilah doomam yu bari xam nañu ma. <laughs>